là benn technique la ñu am te loolu commencé na ma neex trop ci ñoom. muy ban mooy ne booy si tu les suis sur euh, X. Euh, ex Twitter ex Twitter. tu les vois pas tweeter comme le faisait notre ancien président de la République. Mm. sur des choses presque inutiles mais dañuy tweeter sur des actions gouvernementales. yenn décision yi ngay jël journaliste bi nga xamante ne da dem à la source à la limite maintenant même le sénégalais. sur ton téléphone tu peux avoir à la minute décision yi nga xamante dañuy jël da ngay dem ba sur X tu vois même ay résumé conseil des ministres te dama ne mhm. on doit arriver dans ce pays à un niveau d'information boo xam ne am na ci loo xamante ne Aliou Top du tabou ministre lu muy liggéey réalisation yi mu jot def loolu sénégalais yëpp dañ koo war a a am. bu ñuy wax droit à l'information ça commence par ça. mais c'est ça en fait gis nga ñoom seen jub googu. ci loolu la tàmbale mhm. communiquer et apporter donc ce qu'on la transparence ouais, tout est transparent jubal mooy ne ñu fexe ba ñoom jub gi nu jub ba bi ñuy nekk ci opposition kenn mënu leen a wax ne ba ngeen di nekk impôt et domaine mhm. jël ngeen am ngeen ay milliards wala seen compte book amee na sax million allez disons ça ñu mën a yëkkati seen loxo ne ñoom ils ont les mains propres. waaw fa ñu jaar ñoom ba jub. Hmm. foofu la ñuy jaar ba jubal bu nu jubalee nag mu am ay rek récalcitrant ñoo xam ne danoo dëgër bopp ba mel ni Aliou Top ñu jubbanti leen mhm. ni leen di jubbantee mooy ne yoonu jub bi nii la da nga ciy tegu ñu dem sa exemple bi ci ma rek ko par force d'accord Samba Ndiaye da ngay jubal ñu dem dëgër naa bopp gaa waaye nag d'accord amul problème sëñ da ngay jubal ñu dem te <laughs> gaaw du xoolaat keneen maas boobu déet. <laughs> ah nag léegi mu jeexal chronique. da ngay jubal ñu dem da ngay jubal ñu dem. mais suñu président. kan la. Mesere Assane Mesere. Ah, wala nga jubbanti. Euh, ñu tegaat la ci yoon bi. absolument il faut juste que ñu comprendre ko noonu. et mhm. que euh, gis nga euh, yàkkamti baaxul dara ci àdduna sàmb te nit nag wax dëgg yàlla doo ko wóolu jox ko dara mu di la ko liggéeyal ba pare yow nga nga bëgg kii laay plus vite que la musique. bëgg koo waaxu ci yenn yi. da koy may temps mu mën a liggéey. bu tegee parce que li leer ba leer mooy ce gouvernement là n'a pas droit à l'échec ils n'ont pas de chance malheureusement ils ont certes hérité euh, d'une vieille dame malade souffrante mm-hmm. de tous les maux de la société mais malheureusement c'est leur héritage aussi lourd soit-il lu mu diis diis diis diis ñoom loolu la ñu hérité te ñoom ñoo changé ou déclenché bopp li nga xamante ne moom mooy euh, conscientisation bi nit ñi mën a yeewu léegi ubbi seen i bu ñu ubbee seen i gët nag kon ñoom ñi nga xamante ne dëgg-dëgg ñoo ko fi indi te slogan yàgg na fee am waaye bii dafa soxal sénégalais yi te bii sénégalais yi duñu baale parce que bii projet la mm. ñoom ñoo ko jaay sénégalais yi sénégalais yi dañu ko jënd kon ñoom na leen leer ne askan wi duñu leen baal dara. ci lépp loo xam ne processus la ak ci doxalin mais lépp nag dafa ànd ak dal te lépp dafa ànd ak. surtout surtout mais mais li koy dëgg mami. mooy mm-hmm. gis nga boo gisee ministre bu ñu wàccee sur le terrain échange yi ñu am ak askan wi li leen askan wi. Ah di waxee moom sama bu ko impressionné xam nga ni. Euh, véritablement ñii askan wi dañ politique de proximité dëgg la ñuy def. voilà et ñoom xam nañu ne. Mm-hmm. fi gars yi échoué woon ñoom waruñu faa jaar pour échouer. parce que bu fekkee ni nit daf la dénk pour nga liggéeyal ko. Mm-hmm. mais nag <laughs> da koy laaj li mu bëgg. effectivement mu wax la ne la lii lii lii lii lii la. su ko mhm. defee yow soo demee yow ak say technicien ngeen jaar ci ngeen xam lan moo faisable ak lu faisablul mais ngeen def li nga xamante ni moom moo tax ñu. teg leen foofu c'est important mami da nga wax benn euh, point boo xam ne man d'accord ma si ak yow booy wax ne gars yi mënuñu gars yi mën nañ. ah fi nekkoon. lu ñu mën. non dama lay wax ne am na amoon nañ xam-xam bi mais xam nga lan la yéene yéene sénégalais yi ñu nekk ci jàmm. xam nga borom xam-xam bu saay-saay. waaw loolu laa lay wax <laughs> dañu yéenewul sénégalais ñu nekk ci jàmm tu sais ils ont compris que Macky a été élu par défaut Macky a été élu par défo set popularité là bi ab Ablaye Wade amoon bi muy falu popularité bi Bassirou Diomaye fa am Macky amu ko woon donc les gens savaient que. et, et, et, et même il y a quelqu'un qui a dit en 2019, 2019 bien passé, les résultats qu'on a donnés à Macky, c'était pas de, les vrais résultats. Ah, les résultats, yo, xamantene, Mohamed Boun annoncé ils ont utilisé, ils ont utilisé mmh, une stratégie. C'est transformer tous les Sénégalais en larbins. Appauvrir leen, dugal leen ci benn ndóol boo xam ne après ñoom ñëpp dañuy nekk ay ñaankat. Mami tabaski daaw wala daawaati jéeg heure bii fekk na les sénégalais envahir Mariam Faye Sall ñu joxe ay enveloppe waaye ji boo demee romb boo romboon palais de la république da ngay gis rang nit ñi rang c'est-à-dire dañoo demoon ba sénégalais yëpp di fa faraan ñëpp di yalwaan ñëpp dañ leen defoon ay yalwaankat ñëpp dañ leen defoon ay yalwaankat waa léegi yow loolu aay la non waxuma loolu aay la de dama ne xamoon nañ moyens yi ñu mënoon def pour dimbale sénégalais yi mais yéene wuñ ko Sénégalais yi. mooy mooy def ñëpp la ay larba. tu sais on a des gens très méchants. Mm-hmm. je pèse bien mes mots gis nga ñi fi jóge ils étaient trop méchants. Mm-hmm. parce que amoon nañ possibilité yóbbu Sénégal Sénégalais yi ci condition yu ne yu baax condition yu rafet mais bugguñ ko woon. Mm-hmm. parce que xam nañ ne lenn moo leen lié woon ak ay Sénégalais tant que ñu ngi nekk ci situation de précarité Sénégalais dañ leen di topp. ndax ñoom xamoon nañu Sénégalais yi gëmuñ leen woon. mais c'est la différence entre. li Ousmane di wax. waaw ñoom mooy machiavélique lañu jàng. ma ngoog et pratique yooyu si la ñu nekkoon. plus que peuple bi gën di souffrir. di gën mu lay gën a ñàkk a tal. Mhm. yow ngay gën a mën di doxal sa politique. alors maintenant nag espoir est permis quand ki nga xamante ni moom moo ñëw ne lay li taxoon gars yi doon fañ doon jaar di leen souffrir loo man xooluma loolu. ci mhm. gën ci ñun. ci gën ci mbindeef yi. la mu wax ne noonu ngay def pour sauver sa askan ci loolu laay jaar. mais nit ñi dañuy mën a nooyi fi mu toll nii. ah en tout cas alhamdulilah. en tout cas alhamdulilah parce que man li may wax nii. ñun ñun jamono génne école bu bon dugal la ci école bu baax. waaw boo góorgóorloo tuuti. rek boo jàngee tuuti. boo jàngee tuuti boo jàngee tuuti rek am diplôme. mais xoolal jamonoy Macky Sall les gens ils ils ils parlaient plus de projet même kër yi. li ngay wax ne bon fin du mois bi bëgg nañ ñu changer suñu meuble yi fin du mois bi ci tegu bëgg nañ changer les gens defatuñu woon loolu xam nga lan lañ doon dundee dundu picc mm-hmm. da ngay xëy jóge ci sa tàgg dem wuti loo lekk ñëw indi ko toog jàpp sa njàmbur c'est-à-dire que on nous avait réduit vraiment ci benn état animal je m'excuse du terme mm-hmm. moo tax ma ne la gars du question xam-xam de mais question yéene la ak benn am ñu xam ne amuñu xam-xam voulait vraiment réduire le Sénégalais ay cuune lañ ci amuñu xam-xam ci wayaan xoolal xoolal waaye ñii bu ñu amoon xam-xam ñoom ñoom ñoom nañu sàkk nañu sàkk sax ci ci ci ci alalu askan wi sax def ci seen poos waaye na askan wi dund na askan wi nooyi waaw mais je veux dire que waaye yow askan wi nooyiwul yow yaay nooyi yow xam nga ce qu'ils ont réussi à faire <laughs> ils ont réussi à installer la peur du mauvais camp c'est en tout cas def nañ jël askan wi xupp leen tiital leen def na ñun ñëpp ay ñaankat saa yoo génnee euh, takk der yaa ci biti deux coins boo romb oto police a nga fa taxaw mm-hmm. jël ñu rek xupp noo xupp tiital noo tiitala tiitala tiital ba ñemew ñoo ŋàng wala ñiy ŋàng ci réew mi poignée nit yu ndaw la woon am courage wu taxaw pour euh, se battre et dire la vérité aux gens mais ça il faut que ça change c'est en bonne voie de développement avec les mesures nga xam ne jël nañ ko et puis ce qui m'a le plus ce qui m'a le euh, c'est que sous le règne de Macky Sall on a fait la promotion de la médiocrité exactly mooy li ma la doon wax tout à l'heure <laughs> mooy réew mu nga xamante ni mhm. pour nga avancer il faut nga nangu yenn yi mais xam nga nag mënoo am benn niveau bi am benn intelligence bi am benn gëm-gëm beeg bëgg sa réew di nangu yenn yi. donc ñoom à un moment donné boroom xam-xam walla ku xam dara walla kuy bañ dara di ko jomb. Mm-hmm. arrangé wu leen. ki leen gën a arrangé mooy ki gën a jege euh, nañ mu baal mala walla. Mm-hmm. koo xamee xelam daal du xalaat. xam nga si njëlbeen wax naa da ngay si ngay gisee si ñoom. xoo xam ne tuuram sax mënu ko bind. Mhm. mais ñun ñëpp gis nañu fii ab woykat moo xamante ni normalement bu dee day jaay ay kaset du jar bu baax. mu ne lépp bu fi Macky Sall nekkee président ak léegi am na ay kër biir Ndakaaru. waaw loolu dégg nañ ko. mënoo tëgg concert bu ñetti nit ñëw mais kooku fan la jaar <laughs> mais kooku ana loo koy wax ba muy xalaat du xalaat. lu Macky wax loolu la wax lu waa kër Macky wax loolu la ñu wax mm. mais des pratique comme sa boobu benn exemple de mais mën nga ko multiplier di ko multiplier di ko mm. multiplier ba nga xamante ni da nga naan non c'est-à-dire lii mm-hmm. dans un pays normal lii warula existe exister et quelques rares comme ni ko mami waxee tout à l'heure ñu nga xam ne ñoom ñoo amoon courage ne man mm-hmm. sa waaye lii duma ko seetaan naa ci waslu sama àq mm-hmm. di ci wax di ci wax di ci jëf ba yàlla def tey mu am coppite mhm. mais ces milliers de personnes là yi nga xamante ni changement bi daf leen arrangé wul mais waaw ñu xajamal cere ji. ah mu ngoog kon ça va nous permettre euh, <laughs> top d'entrée ci suñu beneen sujet bi euh, l'État a casqué cinquante milliards pour au moins wàññi prix euh, denrées yi hmm. un ouf de soulagement pour euh, la oui, population. Oui, oui, tu sais, euh, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Falou, il avait dit une phrase. J'engagerai une bataille contre la vie chère. Mhm. Opposition bi jafandu ci boobu ba tey coow li bari. et gis nga euh, li nga xamante ne mooy euh, communication bi ñuy jot a def tey sur la baisse des prix ma ci. sucre cristallisé bi prix du kilogramme bi nga xam ne dañ ko homologué woon à 600 francs non plutôt dañ koy dañ koy jaayee 600 francs contre 650 bi nga xam ne loolu lañ ci doon wàññi kon wàññi nañ fukki dërëm mhm. riz brisé non parfumé bi mu ne euh, riz brisé non parfumé bi warul dépasser 410 francs mhm. soit une baisse de 40 francs 40 par rapport francs. au prix actuel pratiqué li ma ci gën a neex mooy mesure bi nga xamante ne annoncé nañ ko par rapport ak ceeb bi ci euh, quatre vingt mille tonnes yi war a jugee euh, ah. Inde. Ah te xam nga Inde c'est le jamono bi bokk na ci bu nekkul sax même le pays le plus peuplé seen ceeb ak seen ay bagages dañoo demoon ba dañ koo tëjoon. Mm-hmm. Mm-hmm. donc ñoom bu fekkente ne président Bassirou Diomaye réussir na à ce que ñu convaincre les Indiens. ci lu jëm ci wàllu importation ceeb bi muy ñëw ba fii et le riz indien tout le monde sait que bokk na ci ceeb yi ñu gën a. mais il paraît qu'il y a même une convention qui a été signée en ce sens. c'est ça qui est bien c'est le fait d'avoir réussi à décrocher ça. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu mooy euh, exploit bi baax bi. Mm-hmm. après nag on reviendra sur la production locale ak ni nga xamante ne noonu la ñu war a liggéey ba pour yëf yi jëm kanam dawlin moom la njaboot yëpp di jooy. ñu wàññi ci 100 francs